moo baaxul billaahi looloo mooy yóbbu. 7 mm-hmm. FM. Mm-hmm. man ne fa ne ne FM ba 7 FM tëj. en VFM. en VFM waaw. ki ma fa yóbbu mooy Gaston mi Gaston la ñu euh, xëy. Mm-hmm. mu daal na ma xam nga en VFM ma ne ko déedéet. mu ne ma Mame Less Camara dafa la soxla. demal 7 FM ma ne ko fa 7 FM nekk mu ne ma Marius. ndeysaan keroog. ba may dem paas sax sa yor ma ma ne ma ne ko a ah, wa nu may def mu ne ma boo demee nga nga laaj maam les paas taxi bi ma jël taxi Sandaga fay ko mille cinq cent franc ne ko yóbbu ma euh, kii mu andi ma ba ci buntu euh, rajo mhm. maam les ma yéeg maam les génne cinq mille jox ma ma fay taxi bi mille cinq cent mu delloo ma trois mille cinq cent ma dikk dikk ko jox mu ne ma gardel ma garder ko mu ne ma <coughs> man maa la dafa am ñaari émission yu mu bëgg nga defal ma ko mhm. muy làmb ak émission bu ñuy wax démb tax ñu naan tey mhm. euh, man nag euh, ñaata la euh, ah fële daan fay ma ne ko ñun day dañu daan mosal rek mu wutal ma salaire bu baax mhm. keroog bi ma bi ma defee sama avant première émission keroog bi mu xëccee toral bi trois cent mille la yëkkati jox ma ne ma euh, chaque fin du mois am nga fi sa sa salaire mu ndoy ban mi mhm. ban mii ñuy wax mi <coughs> man mii maa ko man ndoy ban ndoy ban vigile la woon mhm. jóge militaire nekk vigile ci biir rajo bi mhm. mais bu may def émission day yéeg ci kaw nekk euh, yor technique te bu li ma li may soxla yëpp ci démb ñu naan tey woy yeeg xalam yeeg day da da ciy bokk parce que dama may dugalal loo xam ne ba benn bés euh, RFM bi nekk euh, rajo municipal de Dakar. waaw ubbi RMD. <coughs> Mm-hmm. ubbi. ñu ngi nuyuwaale Oumy Thiam. Euh, ki ñu daan defal animation nu mu tuddati waaye xalifa xaw ma moo daan def euh, matinal bi ay musique ak yooyu mm-hmm. dem maam les daal ne ah man il faut ma wut benn animateur mu ne ko jëlal ndooy ban mu ne waay looy wax nii ma ne ko euh, monsieur le directeur mu ne ma ne ko ndoy ban sañ wax la mm-hmm. jël ko ci la ñu jëla ban def ko animateur mm-hmm. moo tax fu ma dajeek moom li muy jëkk a def ci àdduna mooy génne xale jox ma man maa tax mu nekk animateur il est reconnaissant kooku dafa reconnaissant soxna dëggan simer yal na ko yàlla yërëm te allahumma amin bi ñuy def TFM waaw maa ko wax man ñoxu bàyyi wareef boobu salaam mel dafa am naa ci dara parce que dañu bokk en mu ne ma tonton ñoxu bàyyi dëggan yàlla na ko yàlla yërëm allahumma amin euh, dama bëggoon ñu bokk émission ma ne ko non non bañal ko ko bañal ko ko ba FM Sénégal tëj ba mhm. Océan mhm. mam les yoraat ko woo ma mhm. muy def émission moom mu ngi ko tuddee woon ëtt jigéen jigéen ñi la tuddoon mu daal ne ma dama bëggoon daal ñu bokk émission quoi ma ne ko non non mam les woo dama comme que kii mi ñu la bi en ba fii ne la dañ da da ngeen dafa bëgg ngeen bokk émission bokk leen émission ma ne ko émission bi mu yor lu mu tudd. Mm-hmm. mu ne ma ëttu jigéen ñi ma ne ko xanaa kon góor ñi bokkuñ ci yow émission bi ngay def pour jigéen ñi rek la mu ne ah, ma ne ko euh, euh, euh, dañuy changé tur wi mu ne ma nan lañ koy tuddee ma ne ko wareef. mu ne ma lu tax wareef. ma ne ko ñetti warugar yu war doomu aadama bi ci àdduna. premier warugar bi la war mhm. yow en tant que doomu aadama mhm. mooy warugar bi la war sa diggante ak rabbu samawaati maa fi ard muy yàlla mhm. ndax moo fi indi bi ci topp mooy wareef bi la war sa diggante sa ñaari woy jur ndax fala la jaarale wareef bi ci topp mooy wareef bi la war sa diggante ak àdduna ci la say bokk nekk ci la say xame nekk ci la say dëkkandoo nekk ci la say wasila ne ñu di ko def maak moom di ko def maak moom ba bi ma demee màkk direct la ma bi euh, TFM ubbee. Mhm. ñu dégagé ma jël Ndiaye loo Ndiaye indi. dëgg moom moom. waaw def wareef euh, waaw. muy loo xam ne nag naqarewu ma. TF euh, wareef boobu ñu kii kii mu Ndoye Bane leeral na ko bi mu nekkee téléphone. Mhm. ne wareef bi tonton Niakhobaye moo ko moo ko a tax déggan ci maire Ndiaye Lo ñëpp maa ngi leen di ñaanal yàlla yërëm na leen yàlla xaare àjjana allahuma amiin euh, te yàlla bàyyi ñu fi lu yàgg yàgg yàgg allahuma amiin parce que gis tey bu ma génnee Ndakaaru bu ma xoolee réew mi damay yéemu mhm. ci àdduna ndax lan parce que ñun bi ñu nekkee xale nga mhm. booba Medina kenn goudronné wu ko mhm. suuf la woon léegi nga jógee Océan FM. après nga dem far waaw bi ma jógee Océan FM. Mm. Euh, dama dem FM dama dem euh, Sénégal FM. waaw mu nga nekkoon ci place de l'Indépendance. waaw ba fa jógee nag euh, laa ñëw FM Sénégal. bu Bekkaay ñëw nag FM Sénégal. Mm-hmm. Bekkaay dafay sama rak maa ko mag fuuf. Mm-hmm. magam sa maa ko mag. tonton Ousseynou. waaw yàlla takk sama doom. Ah, sama la. Mhm, mhm. Bekaay. Mhm. sama sama goro la. Mbaye sama doom la. Bekaay sama rakk la. mais dafa def acte bu bu am solo ci man. parce que dafay sama nawle. Euh, nekk sama rakk. Euh, yàlla dimbali ko mu ubbi rajo mais man la jëkkawoo. waaye dafa dikk na ba grand ma ne ko am ah, mu ne ma dama ubbi rajo mais rajo bi dama bëgg nga tànn émission yi nga bëgg nga di ko def ci rajo bi ñaata laa lay fay. dama mhm. jëkk a wax ma ne ko mënoo maa fay mu ne ma lu tax ma ne ko nawle bu taxawalee mbir. Mhm. woo nawleem ni moom nawle boobu war na koo jàppale ba mu taxaw. Mhm. bu taxawee rek baax na. Mhm. noonu laa nekk moom ci rajo bi. ñu fekkan ñu fekkante fa mooy mhm. euh, continuer di def samay émission mais xale xale bu baax la xale bu amul problème. rajo mhm, bi parce man li may jàppe nit du alali addina euh, li may jàppe nit mooy bëgg sa nawle. fonk sa nawle loo am bokkook sa nawle. loolu mooy àdduna. nga jógee nga jógee nag FM Sénégal ñu mais bi ngay nekk FM Sénégal yaa ngi nekk seen